jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara tabaarakallaahu maa ngi ci waxtaane lu jëm ci local yi mu nga nële yàlla nañ ci àgg te weesu ko toll ci àdduna bi ko yàlla sàkkee réew mu ne sàkkal na lu yor réew ma réew yépp am suuf am jaww am asamaan waaw amu nit réew yépp a ko am boroom boobu def loolu nag dañ ko war a cëral ci pénc mi bu cëruwut bu cëruwut lu yàqu ci pénc mi waa pénc maa ko yàq ñëwoon naa ci buñ ko cëree yem cay ame ak ni muy dëlsee ci ñun ma tolloon démb ci nit ma wax ni ay gone ngi fi ay mag aw góor aw jigéen ñépp a ngi ci penc mi waaye ñoo ñu ne ci penc mi nag dañuy am formation buñ leen di defal formation bi mooy ñu xamal leen ne yàlla defal kenn lu man ñu defal ko góor ko jigéen ñi mag ñi ak ñi ñu jàngal leen ne yàlla du defal kenn lu man foofu li ñu fiy jànge dañuy jàng ne kon menn réew defal morom ja am réew mënta yor réewum am réew ni moom menn réew mënta yorum réew mën nañ laa may dara nag tey wala ñu lebal la dara tey boo léegi ñu ne baal nañ la ko baal nañ lañ ca tegoon nag nga mekk ndangam nga sonnu bay bëgg a dee doo dem loolu dañuy former gone yi ne leen am réew li koy doxal mooy nit ñi waaw afara aytuma tumnuna ca la bokk afara aytuma taxruzuuna mooy forme nit ki ba mu yëg ne localam bii moom rek ko mën a defar bu ñuy xaar ne budget bi day jóge barab sàngam ak budget bi day jóge barab sàngam déedéet yow ci sa bopp yaay def say pexe say pexe yoo xam ne xaalis dina ca génne xaay boobu di duggaat ci dugg ci commune bi jóge ci commune bi duggaat ci commune bi waaw min ka ilayka <laughs> min ka ilayka loolu am solo la ba ñëwee ci tam ba tey yàlla defal kenn lu man mooy yàlla du kenn yàlla du kenn mukk du la teen du la sampal forage du la xëccal robinet du la fayal facture lu tax ah man nga ko man nga ko li nga mënul mooy taw dana mi ngi koy def li nga mënul mooy bind géej mbaat dex def na ko waaye yow moom la nga man nga def la ca tege mooy yàlla du taal kenn añ yàlla loolu moom ndaw ku nday yépp ko xam yàlla du taalal kenn añ du rusil kenn mukk du waasal kenn mboolem liñ man ci wàllu lekk ak naan ak taal borom taala taala nee na du ci defal kenn lu man mbokk ñeenti afaraaytum yooyu mu ngi ci suuratu al waaqia wala suratul musni ni ko mag ñi daan waxee ñeenti yooyu dañ ciy defal formation ndaw ñi jigéen ñi ndaw lépp loo xam ne defal nañ ko formation ci ñeent yi ba wan ko ne yàlla dafa kenn lu man defal am ngay capacité xam nga léeg leen nga romb ci benn miir rek nga seen benn xale bu fa dessin dessiné boo xam ne bii bii rek mënoon nañ ko exploiter dessin bii rek waaw mën nañ mën mënoon nañ mënoon nañ cee moom mënoon na cee tedd waaw maa ngi dégg woon waxtaan wu am solo euh, Moussa alaaji Moussa Thiam gan gi mu dalaloon mu ñu doon waxtaan ci wàllu ci meeg yooyu waaye waxtaan yu am solo lañ ci wax kon ndaw dañ koy defal formation formation yi bañ yem ci théorie parce que gaañ bu ñu jëlee seen ordinateur yi léegi bay théorie rek nga ne suba la réew muy jàpp waaw ordinateur lu ñu jël def fii ab rëdd wu rouge def fii wu jaune def fi wu carré dugal fii nangam ne la nangam fii lay wàcc bu ko defee mu wàcc te da nga nga miir ndeke foofa lay yem waaw théorie moom ñun noo ko dàq ko dul ñun ñun sénégalais yi waaye pratique bi nag tabarkàlla ndaw ñi formation bi mooy defal leen formation ci yàlla defal kenn lu man waaye defal leen formation ci ñuy def seeni devoir door a laaj seeni droit maa ngi ci local yi mbokk yi eh, tabarakallahu mu nga nële léegi nag beneen tomb bi ci carré bi kees gi carré bi waxoon na Dieu wax naa lom wax naa wax naa eh, eh, waaw wax naa l'homme maa ngi ñëw ci ñetteel bi muy la nature la nature moo xam dañ ko tuddee àll bi moo xam dañ ko tuddee terrain yi walla kër yi nature bi nit ñëpp ko bokk hmm? waaw waaw nun ñëpp ko bokk ku dib Sénégal rek bokk nga bu dee étranger la ko cay taxa bokk moom du bokk dañ ko cay jaay dañ ko cay jaay mbaa ñu may ko ca hmm? waaw waaw bi nature bi ñun ñëpp a ko bokk bu ngelaw li ñëwee ñu bokk ko noyyi bu péex mi ñëwee ñu bokk féexlu bu bi ñëwee ñu bokk upp bu liw bi ñëwee ñu bokk liw sol suñuy piliwaar rek suñuy nàngam ñun ñu ragal liw bokk géej gi waaw géej gi ñun ñépp ko bokk ku dul ñun nag bokkoo étranger ngay doon boo ñëw dañ lay jaay waaw te buñ la jaayee liñ la jaayee ñun ñi ko bokk ñun ñépp ñu yëg ko moo tax suñuy dugg ñu naan eh, licence napp gi licence yooyu daa war a leer ñépp leer gi du doon nag wax pour leeral jëfa koy leeral local ba ca am sañ-sañ loolu indil ko ca sañ-sañam yooyee lu suqalib localam bu bu suqali moom local boobee day wàll moromi localam suqali ko waaw moo tax tabia bi bu ñu ko bokkut rek xanaa privatiser ko yonent bi nee bu leen ko privatiser alkala u kenn du ko perverti na ko ñépp bokk waaw booy romb géej gi nii léeg-léeg nga gis koo xam ne ki day dëkk fa ci diggante dëkk bee géej gi loola moomu ko ñépp a ko bokk te it bu fa dëkkee ngelaw la fa daan jóge am péex di ñëw ci noonu péex ma ca moom lay yem péex ma ca moom lay yem te péex mi sës ci géej gi géej gi dóor ko kër yi kër yi delloosil ko léeg-léeg kër yooyu xomaak mbaa ñu xóor mbaa ñu yàqu luñ bokk lañu ñun ñëpp luñ bokk lañu ñun ñëpp waaw loolu ñu bokk nag muy nature bi mën nañ ci am masaakin ay dëkkuwaay Sénégal fi ne bu ñu nee mat nañu mat nañu seize million personnes dangay laaj ñuy defalu géographie. Euh, surface Sénégal ñaata la bu ñu ko diffusé par quinze quinze sur dix nun ñëpp ay am kër mu des nun ñëpp nooy am kër mu des waaw te loolu politiku politiku euh, local yi décentralisation yi wax naa ca ba may tàmbali dañ fee war a jële xiif rafle mar ak tëdd biti te di biti neex na fee jële malheureusement malheureusement su fekkee ne nit mën naa mën a am fanweeri kër ak juróom-ñett am koo xam ne kii kër da ko te ticc te nu bokk fi fi te nu bokk tabiaa bi ñu daggal kee sa xañ kii su boobaa du sotti su boobaa du sotti kon dafa war a am ay dëkkuwaay ñun ñëpp nu am waaw ñun ñëpp ñu am su ko defee bu ñëpp amee ñu xam ne kon sunu réew mi ñu ngi jëm ci mu suqaliku waaye ginnaaw bi ñu defee politiku dëkkuwaay politiku dëkkuwaay euh, dañuy def politiku dëkkuwaay bu ñu génnee àdduna yàlla na yeex mu lañ tuddee ay xabru ndeysaan yal na yeex waaye ci ci ci ci ci ci koñ boobu ñu tuddee euh, nature bi environnement bi suuf si foofu lay dugg waaye mbokk yi ndax suuf dëkkuwaay la ak bàmmeel dong déedéet suuf si dëkkuwaay ak bàmmeel dong mais dafa war a am tool daa war a am ay tool ay tool gis nga ñol ñol ji ni mu bëree ci penc mi càlle am nay am na suuf si yaatu jenn waay mën na jóge bitim réew bëgg suuf si yaatu su fekkee moom may ñëw ca suuf si yaatu sax yaatal na dënnam waxtaan ak waa waa càlle duñ ko gàntul li muy def mais su fekkee daf bëgg jaar ca kaw rek ñu tekki bagaasam kii lu muy def nii ñu ne day móol ah di du loolu loolu duñ ko defee noonu kii li muy def nii ñu ne day bay kenn koy na nga naan du ko fi bayee waaye am na nu mu doon nu mu doon demee nit mën naa ñëw calle exploiter suñu tool yi ya sunu tool yi maam ya ci noo xam ne ñu mënuñu ko ñu am ca njariñ lu ëpp njariñ lañ ca doon am ndax man sama toolu gerte daaw ak daaw jéeg <laughs> yàlla ma yàlla yërëm mu ngi noonu waaw sama toolu gerte daaw bu daaw jéeg mu ngi noonu xam te du tee danaa bayaat rek incha allah waaw wàññi naw jiw ba noppi <laughs> bay dugub kenn musu koo gis rek waaye ñëw rek daal ne acca déedéet du noonu du noonu dangay ngay wax ak waa pénc mi ñu xam li nga nar nga jël ca pénc ma ñu jiite yëf ya waxtaan ak ñoom ba indi bagage jot nga indi ñuy gis nga tàmbali waaye xëy benn bis rek gaari sab camion kii li muy def ñu ne daa bëgg a bay ah fu muy bay ñu ne fii ah ku ko jox ñu ne nangam nangam déedéet du noonu parce que daa am yoo xam ne mën nañ la koo jox ci wàllu ay këyit mais aada joxu la ko réew mi daa am loolu dañ laa jox lii ciy këyit peut-être sax am nga titre foncier peut-être am nga ko mais titre foncier bi nga xam ne mooy bu aada bi amagoo ko titre foncier bu état nga am mais amagoo bu aada bi nga amagul bu aada yaa war ba faa ngay am bu bu nga am bu aada ba noppi bu amee bu aada ba noppi ba ñëpp nangul la lu la neex fayal état ngeen ngeen am loolu waaye am nga am nga euh, am nga këyit wi ah, waaye amagoo aada aada ji waaw titre foncier bi am nga ko waaye titre foncier ci aada amugoo ko mbokk yi maa ngi ci local yi yàlla nañ ko ak yàlla nañ ci àgg te weesu ko maa ngi ci programme ñi bëgga laaj local ba yéeg ñëw ci département arrondissement région ba yéeg ci njiitum réew yii nga xam ne moom lay wax ni dafa baax ci local yi waaye baax na ci fépp maa ngi toll ci tomb bi ñu tuddee ak tabia maa ngi wax ne mën nañ ci am ay dëkkuwaay waaw alam naj alil arda kifaata ahyaan wa amwaata sunu borom na ne kuy dund wutal naa la foo dëkk ku faatu wutal naa la ko mu ngoog kon dëkkuwaay yi ak bu ñu génnee àdduna dëkkuwaay ya waaye ak i tool bu ñu amee tool te def politique agricol bu baax léegi tey taxawaaloog ñàkk liggéey ñàkk métier jeex takk mbaam wàññeeku waaw waaye penc mi ba tey ma waxaat ko théorie def nañ nangam ci mbay mi jënd nañ nangami tracteur wax nañ dëgg de yooyu ñu wax dëgg la de waaye nag waaye nag fa mu war a àgg ak ca ñam war a àgg ñan lañ ndax ma ndax mooy baykat yi dimanche yi walla mooy ñan loolu na ci local yi sóobu na ci local yi taxaw na ci local yi def seen kémtu lay kàttan su ko defee nañu door ca am barab bi ñu tuddee ay barab yi foowukaay muy barab yi ñu tuddee barab yi foowukaay mooy ay espace espace vert ah, nga xam ne ay barab la yoo xam ne nit ñi mën nañ faa ñëw yëngal seen yaram ñoom seen yooyu loolooy dem ba ci ñu ne stade sàngam waaw terrain sàngam waaw course sàngam waaw yal yàlla yërëm nag dégg naa amatuñuy stade ndeysaan waaw parce que démb damaa dem ba dem ba jëm ndeysaan taxaw jàkkaarloo moom di ko xool stade Demba Diop ndeysaan nga xam ne match bu nekk am na fa waaw Ablaye Diaw dina ko jottali ñu nekk ca daara ja san ba jëmmi jaman ñu dox ñu dox ñëw Dakar léeg-léeg ñu dem terrain toog waaw maa nga gëj terrain ndeysaan Gia Kasa <laughs> daanaka ci laa gëj ci terrain Gia Gia waaw match bu doy waar boobu ndeysaan kenn mësu koo gis rek waaye ndeysaan amatuñu terrain yal na yàlla yërëm ay teet teet teet Alaaji Malick Ndiaye li ma ko gën a xam kon ci wàllu environnement bi ci wàllu nature bi biñ ko séddalee ay kër ay xabru ay tool dafa am nag foo xam ne fii ay jardin public la peut-être ay terrain la peut ay arène la nangam-nangam yooyu day am waaye nag ñu fexe ba coordonné kay def loola mooy ka def la ko war ci liggéey ba noppi door dem defi lii te bañ koo def métier mbokk yi sunu borom bindal ñu ñu wax ay àll xaabaat sunu borom bindal ñu wax ay ab àll nga xam ne moom dëkkewuñu ko bayuñu ko foyewuñu ko defuñu koy sëg loolu tam léeg nga dem ci local yi am ñu ko am toog tuuti rek loolu nga xam ne dëkkutoon ay kër ñu dagg ko sot au lieu mu nekk àll ñu jële ko ci àll yóbbu ko ci dagg ko ay teere jaay ko def ci seen poos hmm? ëpp naa def kenn du jiite local def ko noonu ab local boo ca nekkee buy séddale ñàkkal te sédd ñu am waaye njëkk sédd sa bopp loolu baaxut loolu baaxul kon local yi am na ci ñoo xam ne ñu ngi des ay espace ba léegi waaye da nga jékki rek dégg ñu ne eh, ña ngi koy dagg wala ña ngi koy jaay wala jaay nañu ko diw nga da tàll si kayit këyit yi moo gën a yomb waaw kayit yi moo gën a yomb am am këyit ci aada ji waaw lii moo gën a yomb bi ngay am bàyyi ci état amal bàyyi ci aada ji bi ngay am titre foncier ci état amal titre foncier ci àddi ji lu ci am solo la ci pénc bi naka noonu sunu borom wàccel ñu géej local yëpp mënuñu am géej waaye am na ci yu am local yëpp mënuñu am géej waaye am na ci yu ko am département yeeg arrondissement yeeg région yi yëpp amuñu géej waaye am na ñu ko ci am am ñu ko ci am ci li ngeen xam ci njëriñul géej waaw su ko defee ñu fexe ba di jariñoo géej gi tem bañ di ñu jariñoo noonu la yàlla defee euh, benn beneen affaire bu am solo muy muy le soleil muy jant bi mu ñu liggéey lu bari te dese yu bari exploité gu ñu mu dese bokk na ci mu dese énergie bi bi soleil am hmm? alimenté nam réew waxuma la région ak département waxuma la arrondissement waxuma la local waaye moom rek def la loolu mu ngoog kon mbokk yi tomb boobu ma nekk ci tomb tool yak yi ci aju xam ngeen ne ñun sunum réew àll bi liñ ci bay nangam pour cent yi tuuti na lool waaw liñ ci bay lu tuuti la te mënoon a bay lépp te buñ bayoon lépp dund gi gën a yomb waaw mbokk yi nature bi nag dafa aajowoo ñi ko dëkkee ñu defal leen formation ba ñu mën koo sàmm mën koo setal hmm? waaw local bu ne boo ñëwee fekk mu rafet tëli ya tàlli paxi tëli ya dañ nga gis ay jardin public waaw mbedd ya yaatu waaw kër ya féex hmm, mbedd ya set kër ya set te loolu tam dañ koy jàngal nit ba mën a sàmm nature bi ba mën a dundal nature bi waaw ñu demee màkk boo um, boo boo armalee dañ lay teree dagg garab car bu tooy dañ la koy tere lu tax dañoo bëgg sàmm nature ba jàngal ujaaj bi boo ñibbee sam réew nanga mën a sàmm natiir waaw xam naa sunu mbokk Ali Haydar eh, bu fekkee yeewoo jóg na toog <laughs> yàlla ko yàlla yokk wér waaw suñ mbokk xaali Haydar xaali Haydar waaw booy wax ci nature moom ñaari baat ngay wax rek mbay lam doon def jóg toog bu ko fekkee ndékki mu teg kaas ba bu fa teg <laughs> lay tubaarkàlla waaye ali Haydar nature daf dafay dundal nit bu ko nit dundalee Sëriñ Cheikh nee na nature bi daf noo mere ci si Jacob moo ko doon jàngale nee na nature bi dafa mere insaan ak tabiatu ah xadibat anil insaan dafa mere nit waaw xadabu tabia nag jigul insaan nature bi daf noo mere moo tax ñam moo xaat ko ñam bi jëm ñu jox léegi bokkut ak jëm ñu daan jox mukk raisin jëm ñu jox léegi jokkut ak ñu daan jox maa ngoog xam na imaam Abdoulaye Ndaw xam na ci dara Ah, naajeeg pataas ak pomme de terre rek yépp la seen caf ko changé lu tax parce que nature bi moo nu mere moo tax du nu joxati léegi doomam yu ñor boo demee ci géej gi ndeysaan soixante 1964 ni yaboy neexe woon neexewu ko 2021 yaboy jën wu neex la ba léegi sax mi ngi neex waaye neexoon nam neexoon laaj ko bindu seex seex waaw yal na ko yàlla yokk wér waaw nature bi def nu mere lu tax mu mere nu daf na mere ndax ñoo koy tuur ay mbalit lu mbalit man di mel rek ñu tuur ko ko waaw te duñ ko jëmbatal ay garab garab bu am ñu dagg ko moom nature bi mu mer mu mer boo jëmbatee puloox mu indi la puloox ji wax xat nga def ci ci lay togg mu tëx a ñor waaw nga ne lii nag nature bi ne man la comme lii ngeen fiq ak man mu fiq ak yéen lii rek waaw kenn mësu koo gis ba dama ci àll bi boo masaana bay sëb sëb ba ñuy reer boo toggee sëb daanaka darul nga cee boole dëwlin ndax sëb si day niin tabarkàlla euh, sëb jooju tudd bàyyi ngañ <laughs> waaye gis nga ko ba demee puut maango jënam noonu saf sëfatu ko léegi ñoom toog jeg bu gàtt ak bu ko jeexal ak toogal ba ci kanam <laughs> mbokk yi bind bi jeexut bu ñu dégloo waxtaanu vendredi wu samedi wu dimanche daañ delsi ci tomb bii nga xam ne moo jëm ci politique locale yi waaw élection yeeg eh, palga tabaarakallaahu yal na yàlla may nu dund ba leen di weesu ko yal na yàlla def jàmm ci réew mi ak réew yi kóor su boobaa ñu indi incha allah waajibaat yi nga xam ne moo war ki dëkk ci local bi ak yi nga xam ne moom lay séentu ci local bi suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ak ni taxaw yor seen i këyit bëgg la na firiñ fàncal xibaar yi tubaab firiñ fàncal lu ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bii C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara ngeen àndal coxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wa rahmatullahi wa barakaatu.